mbokk yi ñu bari ci nit ñi dañ leen a jàngalul diine ñi war a wax diine fonkuñu ko liñ leen ci war a wax waxuñ leen ko moo tax diine ji dañ koy fooye fu ñu toll senegal ngay fekk jullit buy tiyaatar di fowee diineem fan yi yéen a ngi dégg benn théâtre xaw ma téléfilm bu ñu tuddee mërs lan ngeen ci gis luñ ciy xas téere yàlla luñ ciy xas jàngalekat alxuraan daaray quraan yi imaam yi mu mel ni ñun yooyu nga xamante ni ay melokaanu diine la ak jëfi diine ñun moom lañuy ñuy fooyee pour am xaalis su suñu tiyaatarkat bu weeru koor jotee yàlla la ñuy fooyee pour am xaalis diine yàlla la ñuy fooyee pour am xaalis diiney muhammad la ñuy fooyee pour am xaalis ñaawteef gënul ñaaw di fooyee téere yàlla kàdduk yàlla nga xam ni yàlla moo waxal boppam alquran yow nga jël jëmmi alquran di ko fooyee wallahi ñii théâtre sañu ñoo fooyee bible mosu ngeen ko dégg ñu fooyee biibul ci théâtre suñu théâtre kat kenn defu ko ci mës ngeen a dégg ñu théâtre fooye ci làbbe jamais kon lan lay nuru dafay nuru ni buñ nee jullit lañ tamit ci wax la mais ci jëf gëmuñu ko ndax nag lu toll ni téere yàlla nga xam ni kalaamun qadim laa yamallu samaahu kàddu gu yàgg la kenn du ko déglu ba fitnawu ba sonn téere boo xam ni jaamu yàlla la jaamukaayu yàlla la kaddu yoo xam ne kadduk yàlla la kaddu yoo xam ne benn lettre bu nekk dix tuyaaba lañu ñu lay fay kaddu yoo xamante ni boo amoon bàkkaar jàng ko yàlla jéggal la téere boo xam ne ajjana moom lañu fay jàng téere boo xam ne ki gën ci yonent yi yàlla yónni ko moom la ñu wàcce ci moom kan moo ko wàcce ci moom aminu sama muy jibril ci kan la ko wàcce aminul ard muy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam qul nazalahu ruhul qudus téere bu màgg kitaabun anzalnaahu ilayka lu ci borom bi teg mubaarakun li ayaati allahu akbar téere boobu borom bi nee na dama ko wàcc ci yow muhammad pourtant ñii théâtre ku nekk am na sëriñ ku mu gëm mais fooyewul sëriñam day defu ko li sëriñam wax fooyewu ko mais téere yàlla lay fooye parce que xamul walla boog am lobby yu nekk ci ginnaawam di ko def loo parce que nit ñi àgg nañ tey ci ut alal foo xamante ni tous les moyens sont bons ja saaga Muhammad jaral na leen ñu am alal tey ay jullit bëgg a di xas téere yàlla mu gën a rëy ci suñ nekk suñu trésor nga xam ni suñuy sëriñ suñuy kilifa diina ñépp waroon nañoo wax kàddu ci lu mel nii nañ ko censuré dañ ko waroon a censuré jël jàngalekatu alquran yi nga xam ni seen métier moo gën ci kaw suuf yonent bi sallallahu alayhi wa moo ko wax de waxuma ko xayrukum man taallama alqur'ana wa allamahu yonent bi nee na ku gën ci yéen mooy ki jàng alxuraan ba pare toog di ko jàngale nga jël ki gën ci xeet wi di ko jaayloo yàmba wala nga di ko foloo jël daaray alquran yi di leen foye nga xam ni loolu rek lañ fi dese ci lu jullit ñi mën a am mën koo œuvre tudd ko alquran ay daara alquran lañ fi am lu ñu dese xeex bu nekk ñu ngi koy xeex daara yi état bi subventionné wu leen état bi dimbalewu leen bi daara sosoo ba léegi amul ndimbal bu mag bu ñëw ci moom daaraa ngi nas nasi ba léegi di dem war ñoo xam ni boroom daara moo téye daara kan mooy boroom daara mooy yàlla. taalibe yaa ngi yelwaan fu na ñu ngi fay dugg sëriñ daara yaa ngi toog di am añ duñu reer di reer duñu ndékki duñu sol si yére yu rafet waaye teewul ñu téye seen ngor di jàngale alquran. di génne nag ñu mokkal alquran ànd ak njub ngeen bëgguñoo wan ni ñiy jàngale alquran ay bandi lañ ngeen bëgguñoo wan ñi taalibe yi jàng alquran ay bandi lañ ngeen di jouer lu mel noonu def seeni tuur du yéen ko njëkkee te du ngeen ko mujjee lu leen neex wax leen waaye bu yeboo ngeen xam ne li ngeen wax kéefër la goo xam ni borom bi lan la wax borom bi nee na qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'uun laa ta'tadiru qad kafartum ba'da imaanikum loolu de yàlla ko wax yàlla nee na moo dama ni moo ndax yàlla ngeen di fooyee ku fooyee islaam fooyee woo yàlla ku fooyee alquran fooyee woo yàlla wa aayaatihi aayaam yi ngeen di fooyee mooy alquranam bi nga xam ne aaya rek la ci wax de waxul lépp sax wa aayaatihi moom ngeen di fooyee muhammad ngeen di fooyee wa rasuulihi ñooñu ngeen di fooye nga xam ne ñoo gën a rëy ci yéen seeni ndey seeni bàyyi nawoon leen ba doon jullit yéen ngeen jël ko di ko théâtre di ko fooye yàlla ne laa taataziru amu leen ngànt munu leen a lay ba ma nangu leen ko yàlla ko wax de laa taataziru waay waay yàlla ne qad kafartum weddi ngeen baada imaanikum su fekkoon amoon ngeen ngëmit weddi ngeen kooku aaya alquran la bu ne ci suuratu taw tawba yow mi théâtre ragalal yàlla réalisateur bi ragalal yàlla caméraman bi ragalal yàlla waaye yéen borom télé yi tas lii di xas islaam war ngeen a ragal yàlla yéen a ngi sooru yàlla combat boo xam ni du ngeen ci génn jullit ñi nag amuñu doole naam dañ leen ëpp doole mais borom doole moo ànd ak ñoom su ngeen yàqoon tey ba ëllëg du tee alquran continuer xas nañ fi imaam lu ne def nañ ko fi ba tey imaam a ngi continuer yéen ñii xas imaam yi di xas jàngalekati alxuraan yi ku am doom ñoom ngay woo ñu tuddal la pourtant ne ngeen baaxuñu de lu tax ñu leen di tuddal kon qul abillaahi wa ayaatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'uun laa taatasiru qad kafartum baada imaanikum kon képp kuy fooyee diine ba dugg ci gaam bi yëgal ni soo wooree yàlla du ko nangu kon góor góorgóorlul nga tub nga dellu ci yàlla